Baba Xarañ Lo maa ngi lay nuyu tey gisaguñu Modou Lo waaye tamit yéen boo leen fi tayee parcelle gépp teew na Modou Lo teew na tey loolu la ñuy wax seen diggante ak Balla Gaye tey muy ñàkk way juróom. Balla Gaye sunu sunu mag la Balla Gaye sunu mag la Double Less sunu sunu baay la àdduna li may wax rek àdduna amul solo na lu def lu baax rek moom moom moom solo. tey même bu dul Modou Lo sax su ma yëgee papam dafa dafa wàcc liggéey rek en personne man rek war naa mën a ñëw man man rek sama jëmm ñëw ñëw jaale ko parce que ku baax la yéen yéenewul kenn ku baax la Balla Gaye ku baax la te am na ñaanu waajur àdduna lépp lay ut boo si amee ñaanu waajur rek texe nga waaw ñu ngi koy masawu nag ñu ngi koy jaal suñu bopp di di leen ko jaale waaw man nag dama mënul wax rek xam nga man moom ay wax moom mënee ma ko si ay caméra mais laal loolu mën ci dégg daal waaw sunu sunu sunu kilifa daal moom moo dem quoi mais yàlla na ko yàlla xare àjjana rek suuf sedd si kawam ak ñi mu fi fekk yëpp ak ak ñi ko fi fekk bu soobee yàlla waaw. Modou Lo mu ngi ñëw wala. Modou dafa voyagé nag dafa voyagé dafa voyagé dafa dem dafa voyagé quoi nekku fi moo tax mais de toute façon moom bu ñëwee dina dina dem jaale ñun daal ñun daal suñu suñu devoir moom la ñuy def rek suñu diggante ak Balla Gaye jàmm lañu sekk borom baax la xol bu rafet la yor kon kooku bu amee lii mënoo ñàkk bañ a a ñëw. waaw yàlla na ko yàlla na fa gëj daal.